waaw euh, Jibril dafa wax li taxoon sëriñ bi jóg wuti lu baax la gën ngir yot ko xeetu Sénégal yot ko der bu ñuul ndax der bu ñuul dañ ko mës jéem a féetale gannaaw ne mu jóg ci jamono bu jóg jafe ndax 1886 la génn ci yoonam wi nu xam waane fekk na 1885 la nit ñu weex ñi dajaloo ci dëkk bu ñuy wax Berlin ni ñun au lieu ñuy xëccoo àdduna bi way xeexoo te ñu ko séddoo ku nekk féete sa wal te fexe ba dara bañ a booy maanaam ñu fexe ba not suufu àdduna bi yépp ak doomu addu doom doomu aadama yi nekk ci kaw suuf yépp su ko defee fu ca nekk nañu fexe ba suñu nguur taxaw fa maanaam suñu drapeau ak suñu soldat wante it suñu diine jii diine chrétienne nañ ko fa taxawal ba mission bu mës a jóg gaal gu mës a jóg jëm si Afrique mbaa Indochine mbaa feneen dañ dugal ay labbe ci biir pour bu ji ñiy not ci jaas yi ñiy not xol yi jëmal leen ci yoon wale sëñ Touba moom jóg ci wàllu wale ni ginnaaw maa jóg te place bi mooy wut mooy xaadimu rasool liggéeykatu yonent bi fii soo daani ci sowu jant gi ngir bëgg dindi lëndëm lëndëm yi dama jóg ngir song loolule moo tax fasuma yéenee jëf fasuma yéenee dox dara loo xam ni du sariya du li yàlla santaane duma ci aw loolu moo ko fenqaleeg noonu ba ci jamono te fekk na booba noon bi daanaka mokkal na fii ndax booba Lat Joor Ngoone Latiir daanu na Samba Lawbe daanu na Jéeri Joor Ndeela daanu na Samba Yaay ci gaaru Tiwaawan bi daanu na ñi fi des e, Alburi gàddaay na génn réew mi ndax xeex ne baamatul doole ma ba Jaxu jeexal na kon lu fi desoon yore mantu tubaaba la ko jox defe ni nguuram sax na sëñ tubaa ni nguur gu dul nguuru yàlla du ma ci duma ci aw looloo waral mu songoog ñoom songo bu métti bi nga xamee ni moo waral ñu génne ko jalax géej defoon dañ koy sànki ndeke booba foofu la liggéey bi nekk ndax lu mu war a liggéey pour indi ko mu njëriñ li tey ba nga xam ne not na noon bi ba lislaam mën fi liibar mën a nekk nu ko neexee mu di ko fi doxe bu génnul woon du mën a am ndax nit bu nekkee ci biir mbokkam lu mu bëgg a jëf yëpp du ko mën a jëf ñii na kon dañu doon ay nee na boo xam dañ ko dimbali ci yoon wu gudd wa yóbbu ko fa defeen dañ koy sonal fekk na booba dañ ko dogal teq-teq yi nga xam ne moo ni mbokk ak njaboot yi nga xam ne ñoo ko waroon gàllankoor ba du mën a egg fi mu jëm liggéey liggéey bi nga xam ne moom la añ bu rëy bi nga xamee ni tey waxuma la Sénégal waxuma la Afrique mais